ñu ngi rafetlu kàddu yi fi jib yëpp kàddu yi rafet la kàddu yi responsable la ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp surtout suñu doomu ndey yi nga xamante ne ñu ñoo jóge déel ñëw fii gis nañ délégation bu mag bi ñu indi tey fi ñu nit ñi doon séentoo du ñu génn foofu ñëpp yaakaaroon na tey jii bu daje bi amee dañ fi nekk di coow di wax naka su noonu déedéet ñun dañu am ay autorité te xam nañ suñuy autorité yi bu baax xam nañ ne buñ leen ñaanee ñu may ñu te gëm nañ ne monsieur le maire bi dëkk si dëkk bi lii dëkk bi bëgg loolu la ñuy defar amuñu si sikki sàkk tey boo gisee ñu jël dogal bi def ko dañ si waxtaan ak président yëpp pour si nekk ñu woo la téléphone ba nga joxe sa avis ñu soog si dugg donc lii bu amee rek président yi ñoo ñu may doole pour loolu mën a nekk. donc huis clos bi daal la ñuy ñaan di wax sous préfet bi nga xamante ne moo nekk fii si arrondissement Sangalkam di nga wax ne bépp violence bu ñu doon wax ne day am suñu diggante dëkk yi loolu réglé nañu ko violence mënu fee am donc ñun en tant que président ASC bu ñu waxee ne huis clos mooy am yow président bu ñu à part vingt cinq personnes yi ñuy xamante ne moom la ñuy autorisé pour ñu dugg. yow mel président bi rek yaa am accès pour dugg si pour seetaan match boobu loolu moom wax dëgg yàlla ñun président yi mënuñu loolu parce que mënuñu privilégié jël li nga xamante ne mooy suñu supporters yi bàyyi leen ci biti ñun en tant que président ku nekk kenn dem dugg ci biir loolu dañuy trahir suñu bopp suñu supporters te loolu wax dëgg yàlla mënuñu ko donc dañuy ñaan euh, le préfet le le sous-préfet le maire président ODCAV Diouf Meng waxoon naa ko nag ndaje mi dina am pour moom mu ñu dajee ba pare moom mu def mu tirer conclusion pour xam ban décision lay jël lépp lu ñu waroon a wax wax nañ ko ñun suñuy supporters du ñu am problème parce que suñu mat ak Bambilor moo gënoon a critique fii la ñu woote ay réunion def ay té débat ci koñ yi wax ak xale yi ba benn problème amu ci. ni ñu ko defee woon nag suñu match Bambilor noonu lañ koy defewaat suñu match ak Déen parce que boo xoolee suñu match ak Déen mooy gën a mooy violence que suñu yeneen match yi nga xamante ne dépassé nañ ko donc comme yàlla dimbali nañu ba ñuy match ba ñuy yëg si final final fête la fête bi nag mënuñu ko football si wii clos loolu il faut ñu wax ko mu leer bu fekkee ne ñoom tamit huis clos bi moo leen arrangé amul benn problème ñun xëccëw ñu xeexuñu xuloo dañuy ñaan ñun ba ñuy defal huis clos Huit clos on préfère de ne pas aller jouer parce que ñun président yi loolu la wax bu fekkee ne rek fi des nous nous, ñun mën nous nous, Nous licence ba parce que tamit ba final final fête la bu féké fête nous, mënul nekk wax mën nañu Nous nous, Nous am ay kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk loolu ñoom rek lañ mën a waxal ŋàññu ñu kenn dañuy demander li nga xamante ne ñoom ñoom yore kàddu gi ñu bàyyi supporters yi ñu ñëw seetaan match bi violence bi ci séntu loolu du am si nawetaan ñun dépassé nañ loolu donc di invité ñëpp si non violence boobu surtout supporters yi nga xamante ne ñoo dogg gërëm de donc loolu daal moo doon kàddu yi moo waraloon woote bi pour ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk baay violence xajul suñu biir parce que ñun ñëpp dañuy demlante dañu am ay relation yoo xam ne relation yu baax la loolu nag dañu bëgg ñëpp dégg ko pour ñu xam ne xiiroowuñu ŋaayooñu ñun jàmm rek moo ñu ñor te njaamu jooju si la ñuy dox depuis le début bu ñu tenir réunion li may wax ñi doon ñëw réunion ay bureau bureau bi xam nañ li may wax depuis le début damay wax ne ñun dañoo war a góorgóorlu ren ba nawetaan yi yegg ñu football final bi loolu dama ko yàgg wax parce que mooy suñu ndam ñun ñëpp parce que ay année ngi nii final amu fi boo xoolee neuf équipe ñoo participé ren te bii participé wul bari na donc ñàkk nawetaan yu yegg moo waral loolu donc ñun nous sommes tous obligés ñu xool nan la ñuy def ba football ci jàmm benn coow bañ ci am bu ko defee.

ñoom tamit waxtaan nañu yàgg nañoo ànd dem fu bali coow mu si fa am donc ñun ñëpp dajaloo nañ tey jii pour wax ne violence bi ñuy séntu si nawetaan yi du ñu ko mos a gis si ñun donc loolu nag du man dong sama kàddu dinaa si jox bépp président bu taxaw fii mu sànni si kàddoom Lucien mu ngi fi ñu jox ko kàddu mu sànni si après ñu jox yeneen président yi fi toog yëpp ko defee ñëpp sànni seen kàddu pour ñu mën a xam ne li ñuy wax ni lu dogg ci ñun la du lu ñuy tricher maa ngi jégalu ñëpp. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew di nuyu suñu kilifa yi fi ñëw waaw di leen jaajëfal di rafetlu initiative bu baax a baax euh, di la jaajëfal président waaw initiative bu rafet la waaw lii nii mënoon naa ñàkk quoi mënoon naa ñàkk si. jeunesse bi laay gën a basé wu man tamit jeune la kon su may gën a wax damay gën a focaliser wu si côté jeunesse bi waaw jeunesse bu ñu nee jeunesse avenir la quoi avenir u réew Sénégal bi yëpp kon kon war nañu mën a jël loolu exemple war nañu mën exemple loolu xam ne ndaw nekkul affaire de violence violence bu ko waxee rek affaire la ndaw ndaw ndaw war na mën a man boo ma xoolee instant bi jeune la ma ngi ñeen maa yeen ñoo tolo mais maay président ASC Comico la moo ko may du question violence de question vulgaire de question qui question de responsabilité am objectif gëmni ndaw la mais warna mëna jappal sama gox warna mëna taxaw sama gox esprit bëgg la woon ndaw war a defee nekk si boppam ba pare nekkal ak euh, gox bu mu fi nekkaat waaw bu loolu weesoo waaw dañu ne final la final fer la te bu ñu nee fête euh, ñëpp a si war a bokk affaire de yi yooyu seetaan na la moo suñu moo dugal loxo mais weesu na nañu ñaan di dem football euh, nu mu tuddati euh, final bi si fête si fair ñëpp ànd dem dans la joie ñibbisi dans la joie ku ñu gañee nga xam ne gañee la nga ñibbisi c'est ça la loolu mooy loolu mooy àdduna kon gaa gars yi ñuy ñaan autorités yi di leen ñaan di leen ñaan di leen ñaanaat ñu bàyyi ñu dem jouer suñu final sans euh, huis clos bu fekkee huis clos huis clos amul sens ndax bu ñuy sonn pour suñuy gox di sonn pour nit ñi euh, nekkul pour suñu bopp la Sam nekkul pour boppam pour supporter ya ak population Gorom 2 moo tax ñu waral lii nii kon buñu demee ba huis clos waaw ah, non dañuy yàq fête bi te gars yi euh, wax day am dëgg su ma nee wax day am dëgg mooy lan ñun tamit ñun dañ ci am part de responsabilité ñun tamit nañ mettre à la place des des autorités maanaam lii yëpp ñoo ko yóbbee suñu bopp mais erreur la te ñu leen promettre dootul amati ñoom war nañoo jox bénéfice boobu noonu jox ñu confiance boobu noonu euh, am confiance ñun su parole yu leen di jox incha allah man sama côté Comico képp koo xam-xam ne Comico si non violence la muy Gorom 2 muy Déen muy Medina Bambilor kon jàpp naa ne Euh, matut erreur day am après ñu corriger ko dootul amati kon japp nañ ni en route grosso modo euh, violence dootul amati ndax li yëpp jël nañ ci leçon ndax tay li ngay sonn du début à la fin ba ñëw bo fi ñu naan huis clos bu doomu doon tay do ko defati kon ni ñu ñaan euh di ñaan monsieur le maire euh le préfet et le sous-préfet ensuite le commandant de brigade euh ñom ñëpp ñu dawal compréhension xam jeunesse bi ñoo leen di ñaan ñoo leen di taxaw di leen sukkal di leen jébbalu malgré warul mais daf ñoo daf ñoo ñor quoi ñu ngi leen ñaan ñu bàyyi gars yi dem football euh, ñu encadré ñu football final bi si jàmm journée bi neex ñëpp ñibbi si ja di remercier ñëpp di jaajëfal ñëpp jaajëf. salaamaaleykum waa Gorom ngi leen di nuyu seen ak seen sant di doore waxtaan bi ci jéggalu comme euh, président Sam. niñ ko o nivo au niveau de la réunion de l'ODCAV di jéggalu ci acte bi nga xamantene mo fi jaar suñu digënté ak suñu nawle di lo xamantene luñu regretté la lo xamantene luñu metti la entre gorom ak den rek mo ci wara mëna am entre gorom ak den aussi lu yagg la lu yàgg la parce que mën naa fi citer ay idoles yoo xamante ne ñu ngi gorom di woon ay sportif yu ngande di woon ay référence ci zone bi mun na wax kenn si ñoom muy Waynda Diop ah bu fekkente ne nag initiative bi dañ ko jël en l'occurrence monsieur Sam ñeenti équipe yi nga xamante ne ñoo ñooy finaalu peut-être que jàmm moo ñu taxaw et je voudrais dire bien sûr au niveau des ASC ñu waxtaan ak suñuy xale waxtaan bi nag ñu di sensibiliser par rapport à ce li ñu xamante ne moom la final bi sam léegi la ma président woo nee na bëggoon na fi teew mais malheureusement, il ne peut pas. Mais, dit encore une fois, du renouveler ce population de Gorom, parce que affaire bi mu amee rek indexé suñuy doom suñuy parce que tamit un ba am am comportement qui ne ngay jaar fi nga nga donc encore une fois nous ngi jéggalu Gorom aussi que le meilleur gagne et ensuite sur le deuxième point par rapport au huis clos comme Nicole certains présidents la finale c'est une journée de fête et c'est une journée pour la jeunesse et cette jeunesse là doit s'épanouir bien sûr et il dafa def aussi ñi ñuy footballal final parmi les autorités le maire habite ici à Gorom bi ñu ko forcé nag dañ koy ñaan ne ko nag ay ay ndawam ñoo bëgg épanouir ñoo bëgg fo sans la violence boo xoolee jataay bi ñu toog nii tey dama xalaat ne jataay bi violence tu fi am parce que aussi nous aussi ñun ay nit lañu duñu bàyyi Sam wax na ko léegi demuñu pour dóorante demuñu pour saagante demuñu pour diamante parce que ñi nga maintenant ñoy produire violence bo dé xol seen biir ASC defuñu fi dara defuñu donc nous la wax la finale c'est une journée de fête donc on demande à l'autorité à savoir en l'occurrence monsieur le maire que j'interpelle directement à ce que vous menez voir autorité administrative en l'occurrence le sous-préfet nañu may ngir nous ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm finaalu ci sommes nous que nous lañ koy ñaan nous parce que ñu on est assez outillé pour pouvoir nous défendre mais quand on s'adresse à l'autorité il y a un langage qui est nga moy dañ koy ñaan et je pense que ne moom mi nga xamantene mo moo dëkk fii di doon suñu maire di doon suñu kilifa warul xagn wa Gorom seen journée d'épanouissement warul xañ waa Dène seen journée d'épanouissement warul xagn wa mbamilor aussi seen journée d'épanouissement et je pense que je pense que duñ ko xagn donc euh, pour revenir sur le premier point encore dama ci déllu ci ñoo ngi par rapport à l'acte yi acte yi nga xamante ne par exemple ñoo fi mille fois di wax autorités aussi ñu am clémence par rapport à la décision prise ñu may ñu journée bi nga xamante ne moom la ñu mën a épanouir yàlla def ci jàmm di ñaan réussite si journée yooyu di ñaan aussi non violence ci journée yooyu asalaam maa ngi nuyu ñëpp. mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa trop sa sant. Euh, di rafetlu initiative yi bon di leen nuyu yéen ñëpp si tekk sa tur sa sant di rafetlu initiative yi euh, venant du président Sam wax dëgg neex yàlla euh, dañ koy rafetlu dañ koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax Amadou Sène la di président commission sportive bu Médina Bambilor wax dëgg neex yàlla pour résumer rek ndax wax nañ lépp ah muy wii kuloo bi nga xamante ne nii moom lañ ñu bëgg a defal muy zone dis A ak zone dis B wax dëgg neex yàlla nag euh, du loo xamante ne nii day day day rafetal mouvement bi ndax euh, bu ne football ne sport fair play la te gëmuñu tamit ñu départ ci mu rafet ñuy jeexale muy ñaaw euh, di wax président yi tamit encore une fois nañu gën a ñaax supporters yi surtout ndax tamit buñ nee tamit huis clos bu mu am tamit bon nañ indi ay raison yo xamantene ni dinañ dalal autorité yi sen xel président commission supporters yi nañu wax ak ñom ñomit ñu wax ak ay à ce que ñu ci fair play zone 10 A def finalam comme nim zone 10 B suñu borom mom tamit may mu def finalam ci jamm ñun ñu ci encore une fois ñun lool lañuy ñaan yi. comme commencé nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim nañ ñu may ñu agali ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ta defe naa tout en chacun fi lolu ngay ñaan bu fekkee comico bam lor la comico bam lor première seen première match ño tassé comico dóor ñu mais daño ñew andat démb bi ñuy dem euh, au niveau de la zone di waxtane yi buñ paré ñun ñepp ño bok ben auto muy muy muy muy euh, den di gorom kon ñun ñepp ño bok nday ño bok baye dara lu ñaaw xaju fi encore une fois dañuy ñaar autorité yi li ñom buñ ko gisé warna xel warna wara mëna dal mais que ne ñun da ñun dañuy prôner li nga xamante ni mom moy la non violence mais encore une fois nañu gëna sensibiliser les supporters waaw lool dal la amone lo xamante ni euh dina ko ci sànni jàngeen oh, assalamu alaykum euh, assistance bi ñu ngi leen di nuyu di leen jiar c'est Adama Sow secrétaire général de l'AEC Medina Bambilor donc li ñu fi avons tey quatre ASC finalistes muy l'ASC Gorom 2 l'AEC Medina Bambilor l'AEC Comico 5 et l'AEC DEN. donc mu AEC ASC yoo vraiment def nañ parcours pour rafet avec une non violence pour vraiment dix nañ parce que match du début à la fin ça s'est déroulé avec euh, une quiétude amul ben violence ba fi ñu toll ñu dem final final nag comme niñ ko waxee fekk loolu moo ñu fi vraiment la zone aussi à notre surprise dañ ñu notifié ne euh, final bi à huis clos lay doon mu nekk dañ di lancer un appel solennel euh, aux autorités administratives muy le maire de la commune de Bambilor muy le sous-préfet de l'arrondissement de Sangakam, muy le commandant de la brigade territoriale de Bambilor nous ngi lancé un appel à ce que nous dimbali nous nous ñooy ndaw la commune de Bambilor parce que finalement, quoi qu'on puisse dire les deux finales le vainqueur sera euh, une ASC de la commune de Bambilor kon du de Bambilor les jeunes yi nga xamante ne ñoo football nous sommes des jeunes de la commune vraiment nous nañ accompagnons accompagner à ce que nous accomplir un rêve devons devenir des professionnels bokk tey ci joueurs yi nga xamante ne ñoom leen lañuy lim à l'échelle mondiale bokk na ci Sadio Mané bokk na ci du kaa d'autres kon nag ñu ngi leen di woo à que ñu jàppale ñu ASC tey boo ko waxee danga naan supporter tey buñ ñu notifié ne supporter yi du ñu dugg ci stade bi vraiment nekk na loo xamante ne lu ñaaw la parce que boo xoolee nga dem Dén dem Gorom 2 dem Comico dem Medina Bambilor commencé nañ peinture koñ yi te ay xalé yu ndaw la ñom ñoy peinture defar ay drapeau tambali liggéey bi nga bëgg leen privé final nga xamantene fête la année bi tay fête bi rek lañu am ci sport bi kon nañ ñu jappalé à ce que ñu organiser final bi accompagner ñu les autorités administratives nañ ñu accompagner jappalé ñu encadrer ñu parce que ñun xam nañ né muy maire de la commune de Bambilor population moko fi tek muy le sous-préfet de l'arrondissement population bi lay liggéeyal muy tey le commandant de la brigade territoriale de Bambilor askan bi moo ko fi tax a nekk kon nag ñoom la ñaan à que ñu jàppale ñu final bi mën a nekk final boo xamante ne dañ koy ouvert au public ñu ñëw dugg supporter seen ASC ñu àndandoo dem parce que gis nañ ne Medina Bambilor Comico ñoo daje premier match Comico dóor ko 1-0 mais ñoo àndaat dem ñibbi déen Bambilor déen Gorom 2 mais c'est des villages voisins ñoy ànd di le. On kon nak dërëm bi le gal bi nañ ñu jappalé final bi ñu ubil ñu public bi fait ñu feetu andando ñibi di inviter nak toutes les autorités que ce soit le maire que ce soit le commandant que ce soit le sous-préfet invité nañ ci ñep vraiment ñu ngi remercier aussi le président Sam l'initiateur de ce tey limu def ni vraiment yombul dajale les dirigeants de l'ASC Gorom 2 dajale les dirigeants de l'ASC Dén dajale le dirigeants de la l'ASC Comico dajale aussi les dirigeants de l'ASC Médina Bambilor vraiment nekkul lu yomb te tey ñëw nañ fi ñun ñëpp ñu toog foo ree kaf te noonu la ñuy àndandoo ñibbi di joxante rendez-vous incha allah le cinq ñu àndandoo suñu supporters yëpp àndandoo jël oto yi dajale kaar yi daje fi station Shell ñu rangale kaar dem woon les autorités que ne ñun. nous sommes des familles nous sommes des frères nous sommes des sœurs aussi vraiment maa ngi jéggalu ci kàddu bi merci salaamaaleykum mbooloo mi waa Gorom ñu ngi leen di nuyu di nuyu prési di nuyu fi daje ñëpp di nuyu waa Medina Mbambilor ñi nga xamal ne ñoom am final maa ngi leen di ziar di leen bigee bu baax baax di leen wax ni jàmm si le lépp xaj prési li nga def ni dañ koy rafetlu trop trop mais buñu ñu ñun en tant que doomu commune bi lii nii mu nekk wax joo xamal ni tey dëggu ci ñun parce que bu ñu dajaloo dañoo war a waxante dëgg bu ñuy defar nag dañuy waxante nga xamal ni moom moo nekk parce que tey jii dañoo toog jàkkaarloog télé ñëpp buñ paree dañuy seetaan yi ñuy wax dañuy seetaan lii aussi tamit ñu bàyyi ci xel parce que tey jii ni buñ paree ñoom dinañ toog xool analyser ñu li ñuy wax bu baax a baax ñoom dañ dañ leen xamal ne ñun li ñu leen di wax doonul wax joo xaman dañ leen di nax li ñuy wax dañ koo gëm mu doon lu dëggu ci ñun zéro violence bi ñuy woote ñun ñi nga xaman ñooy dirigeants yi diriger ASC ñun nañu wane bon exemple nañu wane exemplaire bu rafet comme ni nga def nañuy daje ñuy gën a waxtaan parce que fii nii muy déen muy ak fu mu mënti nekk ak fu mu mënti toll réew mi li nga xaman mooy commune Mbambilor jàmm dong moo fi xaj parce que ñun ñooy demalante tey jii ñaan ma ko yàlla waa mbir la mbaami loon xewle dara ak lu mu mënti doon man tey di waa comico di dem assister ci gorom noonu faneen ak faneen noonu mais suñu rakk yi nga xam ñoo nekk suñuy gannaaw nañ leen di ñaax di wax ak ñoom du ma wax ñi nga xam ne tey jii wax nañ ñaaw ay dix huit ans boo xoolee fi mu nekk les violence bi ñu koy gën a nga xam ne douze ans lañ am dix ans parce que ci ñoom seeni biir ñooy for ay xeer sànnante ko mu déclenché wu mag ñi jot ñu commencé ñu gëna waxtaan ci cadre bobu bu baaxa ba di wax ne ñun wi couleur bi franchement arrangé wuñu parce que bu né final fait la d'accord fait la nak mais fait day and ak jamm nit ki mëno fait ci ay xeex boy fait da ngay fait si jamm ak salam encore une fois tamit ñu ngi ñaan yalla jamm ci commune bi di ko ñaanal wa den ak wa Goram ak waa Mbambilor wa Goram 1 ñun ñepp ñoo bok nday ñoo bok bay tay di buma ma sañoon ASC yëpp dañ fi tew ñepp dëgg la quatre finalistes yi ñoo fa teew mais ñëpp dañ fee waroon a teew nag parce que tamit ñu waxtaan ñu xam ne lépp cadre sport la rek moo ñu boole te yàlla na jàmm yaalu ak ñëpp di wax ni jàmm daal si la lépp xaj ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a encore une fois tamit maa ngi nuyuwaat ñi nga xamante ñoom laay dajeel muy waa Médina Bambilor di leen wax ni le cinq yàggatul yàlla nañ yàlla mayaat ndam seen kaw comi ko ñëw feetoo fii coupe